tey daal yaa fi ne ah kon nag sa fa location dama naan alhamdulilah yaa ngi waxal alhamdulilah parce que bébé boo gisee sax ni ma fii ñëwee ak bët yi ma lay war nga xam ne am ci yow mais mënul may wax sama doléance mais wax dëgg yàlla bëgg fa mu yem man falaa ma def nii sax falaa falaa tàmbalee ci yow rawatina nag ma ñëw fekk la nga def wax dëgg yàlla amatuma sago ci yow bëgg na la torop torop torop buma sañon sañoon gisoo job bi ngeen may jobloo ni sax arrangé wu mais à cause de yow motax makoy ma liggéey parce que bëgg na la torop bu mëno ma sant dara makoy bañ def ndax goor yalla gi laa bëgg deugal sama digënté yow nga xamni ki goor yalla lu deug suma sañon dal sañoon daal ñu génn quoi vraiment bëgg na la torop waaw. waaw. Mhm. man bañu ma <laughs> mais man góor laa bëgg góor góor bu dëgër. góor laa de. kuy tox di naan. di yëg ay daajam. man may waga yow xanaa moo aas laa koy nëbb man damay gaz damay tox naan man bandi plus laa haut niveau lay ah, yooyu laay war ku dëgër këj nag. maa ma dul def ci kaw suuf déggoo lu ma dul def man damay naan damay tox lépp laay def. aw ma lu may tiit aw ma lu may ragal. wóor na. lagi dong nga koy def aku. ma ah kii moom yow yii wooy. fii dafa soog dindi la bii kecil ko defee yii yii kecil ma. kecil de yow di. eh kamu gue génn. maa ngi xëcc yang xam nga yéen yi ngeen di def nii ñun dafa romb lii doyuma xëccal bu baax. defal ndànk kër gi daa may karatéka. fii may yow doo nga fi nekk xëccal lii. am na ñuy wéq maa ngi ay wéq ci sama koy aj na ngeen sa bakkan. Ah, eh wuyu ci suul yi nag. aj aj na yegg non day sëg. lay lay la la ah. bandi ah. sama tuh jara yi ñoo sama ndëg ak sama ndëgu tànk sama ndëgu yi ñoo bañ xamay ya, ma waaw xaar dina xëcc dama jëli élan rek bëgg naa xëcc di élan laay jëli nii pak dañuy bàyyi génn bi di xëccal li ya kalau waxoo fi léegi bànne nga sama dalih yi mati tiisal am dugal ko sama biir tool bi ma wax dimbali ma ci daal yi teel ma nii ma xaar ma

dañoo tànnalante nag. dañoo tànnalante. Hmm. ci mooy gel bi. ci bopp bi mu nekk moo tax man la gel bi. ah non de c'est de. na bii euh, baax na. léegi xam nga def. nga ni bii ñaata. bii di benn léegi xam nga nañuy def nañ njëkk a jël su nu amee temps ñu ñëwaat jël si bee. man dégguma ci nag yow tamit. bébé xoolal may dugg fi la nga ma wax. lu ma am yéene naa la ko. waa lu ma am yéene naa la ko taxul ma am lépp nag. sa léegi kon est duñ bàyyi ñu jël bee. dina metti de. Ah, dina metti de. wajah jàpp ci rek yow tamit nag calculer lépp ma xool ñaata la ah mais dina tar yaa ci mën a jàpp ah àdduna la laa man ñuy wax ak man bari nañ fi mu toll nii ñu bari laay dégg seen wax nii mais yow bos moom ma gën a intéressé mhm, nit ñi fi ne bari nañ waaye yow mii li nga may wax nii moom ma gën a intéressé bébé. ci xëccaatal bébé. ah waa jë defal ndànk defal bébé xoolal bu ma defal ndànk waaye yow ki toog fii ku ah kii de xam naa ne bébé oh to to to ah waaye. xëccal benn bi ah waaye mënatuma. da ngay xëcc benn bi ñu mën a dem si néeg bi am. jàppale ma ci mbay mi yow it ah man mi laa waay. yow xam nga daas. ah waaw daas moo jala boobu waaw nga wax ma lépp loo xam ci daas. moom anam sax daan ci mbooloo mi war a néew ci. fii maa ngi fi nekk nekkal nit nag. Ah, waaw maa ngi yow waaw xaaral ma wéeru wéer sama wet gi nit parce que li may sant nii maa yaa rek ko xam daas de xam naa ko waaye cagal. bu dee duggante ak moom xamal li ngay wax ak moom. Mm-hmm. ay massage lañ daan defal pour ñëwee mu jël suñu xaalis suñu mën ba nu set jël suñu xaalis yóbbu solo laa dañ suñu jëlee bàyyi ñu dem daal loolu lay liggéey. ak ah, loolu lay liggéey man waaye daas moom mm-hmm. ah, baax na maa ngi dem ci biir defal néeg bi dégg après maa ngi lay ci biir mandi ki ne. maa ngi dem ci biir. waaye maa ne naa waaye. waaw au total la. ah loolu duma ko mën. mais loolu dafa yomb. seerul déjà la woon. Hmm. mais dañ la ko wàññi. wax dëgg yàlla seerul man gis naa ne li ngeen di jaay seerul yomb na te rafet na qualité moo fi nekk. waa Unibella moom qualité la jaay lu mooy cher mèche yomb na. rasta yi yomb na hmm. greffage yi yomb na. kon yéen jeeg ju leen ñime wala jànq ji ku leen ñime dina defaru de. bu baax a baax looloo yow loolu ànd naa ceeg yow. am nañ ay diw yu baax am nañ ay gamme Kantu. waaw am nañ ay Maybelline am nañ ay parfum góor ak jigéen ñëpp. ndeysaan yéen da ngeen dañ leen a war a joobe waa waa Sénégal yëpp yëg ni yéen a ngi fii kon. fii nekkee sur sans soleil bi en face pharmacie du Kayor. ndeysaan koo xam indi ko. mais fii ñëpp ko xam ndax sànq bu baax yi ñuy léegi yow xam hmm. bii après bu ñu demee ñu ñëwaat jël si benn ndax njëg gi moo fi newul. ñor boobu ba léegi ma bëggoon kaa wax mënumaa fexe ba wax ko dama doon xaar ba tegal sama bët doo ko wax ndax man moomeew ma wax ju bari yow bébé yow laay waxal gis naa ni ngeen doon def sànq ci biir saal bi ñuy lijjanti ay affaire ngeen di xoolante ci ay bët ku ne di napp sa moroom bebe rek leel dash wax na ma li may wax boobu ba léegi dama ne patt di la déglu rek di xaar ba gisal sama bopp gis nga affaire business amul sentimental amul ku ma fiy faral ki may jël di ka tas sama bopp yaa ngi may dégg. Aïda man benn problème laa am man ak yow depuis combien de temps ñu ngi liggéey yow xaalis du xaalis ju ne indil naa la ko sa kër business bi bu demee ba tollu fii tey man la ndax maa yow rek la mos a doon mosoo cee dugal kenn. ñu liggéey naa lu ne musoo nangu sax man ma sa kër sama kaw te boo nekkul Sénégal nga nekk Europe man maay maay woote normal mais tey nga gis kii xanaa yow damaa bëgg nga jël sa bopp bi nga def ci ndox yaa ngi amul ku far ak ku may jël di ka tax sama bopp kii li may wut ci moom da koo yor ba mu doy sëkk loolu moo tax ma jël ko taf ko sam pour mën mën maa jege parce que ñun ñëpp ñoo bokk benn objectif bu ñuy jëm kon ñu àndandoo xàccandoo dóorandoo mooy gën a gaaw am na yoo xamante ne nag nekkuma ci te dootuma ci waxati Aïda man fii su ma fi ñëwee pour liggéey bi dox ñu jëm ci kanam moo ma fi andi mais pas di indi ay problème seen diggante yéen ñaar ndax dama leen a fekk ngeen di ànd yéen ñaar comme nag moom affaire bi dem na ba toll ko fii faveur yi ma jox delloo ko ko. ndax man ma nekk ci jàmm au moins. loolu du ci am. yow lay waxal xoolal boo naree yàq sama liggéey dama lay effacé est-ce que yaa may dégg jugeel fii. rek moo ñu fi tax a toog di leen jox marchandise bu baax bu am qualité waa ngeen koy consommer bu baax macha allah kan la Fall waa Fall de moom noonu la mel. soxna ci ya ngi ci ay ci jàmm quoi ni xamna man xamoma xamanté hmm. nañ xamoma parce que daan nga ma fekk sama chambre d'hôtel gis na la nga fay liggéey xalé bu ma doy nga te ku ma neex nga lolo hmm. hmm, tax ma wol la fi pour ñu waxtaan man ak yow man dama bëggoon ñu waxtaan ci benn business business boo xamante ni doo sonn te dinga am xaalis wii ah gis naa la ngay liggéey ci hôtel bi te hôtel bi mooy loolu xam naa seen saleer demewul noonu mm-hmm. te nit ku ne ñaan nga sa àdduna nga avancé dimbali say waajur dimbali say xarit ak say mbokk say dëkkandoo mm-hmm. te man ci li lay dugal mettiwul business bi fi nga tok ngay tok di am sa xaalis te doo sonn ah waaw loolu moom business wala la soxna ci hmm nga ba ma la xamee yàggul te ci hotel bi rek lañ doon tassé te Sénégal dafa xaw a doy wax te yeen mhm. sénégalais tam ngeen di wone li ngeen di wone ak li nekk ci yeen ci diamétralement opposé moo tax dama xaw a ragal dëgg la nag su ma doon liggéey métti na torop parce que fay ñu lu ko jax seen salaire yi c'est catastrophe vraiment en tout cas daal mën naa laa jox confiance de mais danga may woon lan moo tax ma jox la ko amul problème baax na yow xalaat ci rek léegi man de toute façon su ma demee naa ci xalaat bu baax lu ci mënti am man dinaa la prévenir incha allah. ok amul benn problème boo ci xalaatee rek man maa ngi lay dimbali dinaa la déglu léegi après naa la jox sama contact. pour mhm. boo ci xalaatee rek nga wax moom. ok waaw baax ñoo leen gën a kontaan d'accord amul benn problème merci beaucoup au revoir. eh daal su ko def. yow yaa ngi fi indi. juumu. man yow rek nekk ci saa bi dama la soxla togg. dama ñëw tey pour ñu waxtaan pour li fi jot a am yëpp temps yëpp laa bëggoon ñu waxtaan si bu baax xool naa ba xool mais xam naa ni dama juumoon fi ma la fi ma foogoon ni yaa ngi fa alors que la indi ci kër gi bokkul. xam naa ne liggéey rek moo la fi indi ak bëgg liggéey bi jëm kanam moo tax nga ñëw fi juste dama meloon le fait man ak Aida yàgg nañ di liggéey depuis des années. bos eh, ñu sa saxoon nga toog yéen man ngeen di suuxlu yéen yéen ay imbécile di ay doomeram yéen war ngeen a àndat bébé naan da ngeen jël sama marchandise di ka xaaf si digg bi naan de eh laajuma la tëjal sa gémmiñ mu jël la jël lépp teg ko sa kaw daal di may bàyyi loolu rek moo ma metti woon mais après ma xalaatee xam naa que ni ay di gis na ni am nga fulla ci li ngay def am nga si jom en plus am nga foo bëgg ñu egg moo tax ay teg ko sa loxo te loolu dama la koy nangu su ma sañoon daal ñu jël lépp teg ko ci ginnaaw parce que c'est le passé ni jéem a doxal suñu kanam nga japp ma japp liggéey bi gën dox nga nekk sama mag ma nekk sa rak vraiment parce que kër gi dara xaju fi ñun neen la ñun doo nga fi nekk dara waru fay ñaan suma sa ñaan nga baal ma ak bu baax ma ngi ko ci lepp lu la mësa def lu ma la mës a xel naqari ñu nekk si jàmm ak salam vraiment gis nga man bébé kër kan gi suma fi ñëwé ya, liggéey mo fi indi concurrence ma ak kenn bu fekkee tàng xol nga ma doon jaay ak bon bon danga ko fay fekk loo may jaay lu nekk maa la ko ëppale aller retour gis nga man jàmm laa pay laa woote drapeau bu blanc laa yor. kon depuis bu ma leen dàkkee ba léegi yéen a liggéey man au niveau international sax dara duma ci ump ma stade Sénégal gii. lu ma bëgg lu ko guddalal lu ko gàttal dans quarante huit heures sama xaalis bu ñëwul naa leb seeni fan yéen ay imbécile ngeen jaroo leen a sékka dara bébé moom waxuma ay waxam mais yéen di ngeen xam ni man ngeen ko sékkal da ngeen bandi bandi lu bandi woo leen bàyyi sori man ma ciy mën a fekk si ñu nekk ci jàmm waaye bés boo ko taasalee nga xam ne maa la gën a doon wéyu fopp te dinaa la def lu soxor loo xam ne dootoo ko fàtte kon nag noonu nga ñëwee amul problème naa bàyyi mu sedd fàtte woon naa sax Dash comme dañ la ngénte waat Dash yooyu yëpp si la passé te boobu xelu xale rek ma jàppoon te c'est normal comme doon yow tamit muy yow